يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا جويتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا جويتنا كن يبقى جويتا مي برام كراماي xëy na borom xabaana ka ñëpp jot a muy borom karama seeku suyoo xëy na borom xabaana ku sopp Sëriñ Saaliw te moo di Seex Saaliw sun jàmbaar ja ñibbi na lu jinaani kii mooy waaja jëlee laa di mel ni Serigne Saliou bëtu fi am tawakkala te Saliou suuru xamaa mooy borom yërmande yu gën a sii ci ay jikkoom yërmande dinaa la wax la yàlla wax gën di yónni كلكم حسين لك سمان والأراد والنجوم yaa faa di lan Cheikh Saliou naa jooyloo nanu ku sopp Serigne Saliou Mbacké laka samaane wal araati wan nujuum yaa faa di lan Cheikh Saliou naa jooyloo nanu te ji ma jooy jooy walaf ginnaaw ara tey ngeen ji alif ngir bëgg gaa yi xam walaf xam ni Serigne bu mag baax nee nañu sax am nañu dee buy am fasaata ñuy bëgg a dee am nañu tiit ba naa ko dee xanaa imam bu màgg ba aji ma duf bu màgg ba ginnaaw fajar le sëriñ Saliou Mbacké sang ba jàpp ko doon ñor bu suba ni màkk jublu penku ba xaaral ma wax lay mox gisaat nga xam ni sëriñ Saliou duñ ko gisaat yoomal qiyaam yoomal qiyaam koy gisaat ay bilet du ko koy bayaat Serigne Saliou Mbacké ku topp Serigne Saliou Mbacké ku topp baayu soxna waalo yomal xiyaam lañ koy gisaat ay bila tool koy bayaat Serigne Saliou Mbacké yaa ñu defal ay lopitaan bëgg ñu am capital Cheikh Béthio Thioune yaa ngi ko tàngi yàlla Cheikh Saliou kaay leen ma jooyle ki teeñu sooyle ku ndeete xoole Serigne bu mag ba Serigne Saliou Mbacké ci at yu néew la mel ni baayam jigéen nga mel ni baayam fob la xasaayam di jëf te mas la ba di sant daara di yar si xaara saw sibtu jaara ba tooge jalba Serigne Saliou Mbacké caat yu néew nga mel ni baayam caat yu néew nga mel ni baayam fob la xasaayam di jëf te mas la ba di sant daara di yar si xaara raw sibtu jaara ba tooge jalba sam dugu tis lool na xar la dool lool bis ba mu jëloon la Serigne Saliou wuy ji buur ba دايري خار بوالي كفار خير مطلق اليار دمو فرين با اللهم صل على سيدنا محمد وسلم